continue waxtaan ki nga xam ne mooy Julian Nagelsmann dellu seen également ci apport bi Sadio Mané di indi Bayern de ak également supporteru Marseille yi nga xam tay dañ doon yuuxoo wa Marseille ci premier mi-temps bi également di laaj pour ñu daal di jox chance ki nga xam ne mooy Ahmadou Bamba Dieng Dieng loolu la ñuy waxtaanee mais d' abord ki nga xam ne nag moom mooy donc Boris Junior Sambou démb joué na donc euh, même premier but bi il était impliqué ndax moo doon bal mu dal ci baar bi donc euh, ci poto bi plutôt moom actuellement ñu ngi koy annoncé du côté de euh, plutôt de la Turquie mais ba léegi dara leeragul en tout cas mi ngi bokk ba léegi Sénégal on espère qu'il va trouver un club très bientôt pendant ça également Giorgio Cellini Mon de carrière en 2010 est sur signé Real de Madrid José Mourinho Carvalho le portugais xam moo tax demul woon nee na 2011 aussi mënoon na dem Manchester City mais finalement il est resté à la Juve pendant ce temps lui il risque de ne plus rester du côté du Paris Saint-Germain Mais il se gagne Gueye parce que les lui les discussions mi ngi waxtaan mi ngi gën avancé et moom mi ngi waaj a déggoo ak ñi nga selon les informations données par l'équipe ak Everton pour daal di dellu fa nga club boobu la jóge ñëwaat du côté du Paris Saint-Germain d'ailleurs hein, pour li nga xam ne nag moom donc composition hein trophée des champions au Paris Saint-Germain nii lay demee hein. donc ki nga xam ne Ramos hein, Marquinhos ak kii di Kimpembe ñoo défense Nuno Mendes ak également Hakimi Vitinha Verratti ci milieu de Messi euh, Neymar et Sarabia que du côté de l'attaque On se joue également du Paris Saint-Germain Christopher Nkunku média allemand et moom il il le meilleur joueur de la saison en Allemagne hein, devant un certain Robert Lewandowski donc Christopher Nkunku démo également dougalna na ci finale finale Super Coupe d'Allemagne On joueur bah pour man ku jënd joueur excellent qui nga xam jamais Benjamin Pavard plutôt finalement Daphne, du jugé fi nga xam ne mooy ci Bayern de Munich dafay toogaat saison bi loolu la nag yéen kaay waxa ak yéen média yi donc dañ ñoo wax day dem du côté de Chelsea mais lui il aurait décidé après finale bi de rester du côté de la Bavière kii di Cristiano Ronaldo nag gis ngeen match bi tey donc il était titulaire moom avant match bi jeex génn na ba waa ji génn ci biti nii di signé ay autographes et dédicace ah ba léegi mënuñoo wax ne concrètement ndax day des ci Manchester United ce qui est sûr mooy que ne daal tey joué na titulaire après avant match bi jeex la daal di génn dem ki nga xam ne moom nee na demul fenn mooy ki nga xam ne mooy Firmino Firmino nag après li nga xam ne nak moy Community ko il se sent bien du côté de Liverpool même bu fekkee ñu ko du côté de la Juve moom foofu la bëgg na il veut rester le plus longtemps possible du côté donc des restes de Liverpool Jude Bellingham moom nag ah bu plus tout saison bi du du côté de Dortmund parce que moom annoncé woon na ne saison bi day toog Borussia Dortmund mais finalement, mu Real Madrid ñoo intéressé wu pour le recrutement recruter 2023 Barça également ñu ngi koy ciblé de même que Manchester United et Manchester City en tout cas bëri prétendant mais aussi les retrouvailles entre Paolo Maldini et ah, également ki nga xam Basile Boli hein, le duel hein, rappel de souvenirs hein, entre également le père de Maldini et aujourd'hui Basile Boli à l'époque c'est le premier trophée euh, Ligue des champions donc Marseille ci Milan le ko Milan nag Marseille, Marseille dañoo joué jogante kharito premier mi-temps 2-0 notamment ki Olivier Giroud Momo Dougal, deuxième but, Milan ca mi-temps bi supporteru Marseille yi di yooxoo ki nga xam na moy équipe bi ak aussi ki di Igor Tudor ne ko Tudor ah Igor Tudor il est en train de dormir mi ngi nelaw nelaw yu graw bo leen gisee di nga mi ngi nii ah donc Suarez tey la préféré même à la place de Milik et aussi ki nga xam moy donc Baba Dieng parce que mo Baba Bamba 5 cinquième la ci hiérarchie bi loolu nag tax na supporteru Marseille ñoom bëgguñu ko dégg ñu bari nak ñi ngi naan Igor Tudor dafa war a jógee sax Marseille ndax mom amul philosophie bo xam tay identité de Marseille la donc nee aussi mom bu moytul pré-saison bi lay yem dal di fay euh, championnat mom bëgguñu ko ki rek di Ahmadou Bamba Dieng gars yi mënuñ balé comprendre lutax mom mu duggé mu dugaloon doublé bo balé léegi mënuñu ko may chance am Igor Tudor ñew mom am sañ-sañu ne non sax ci 5 attaquant yi nga xam mom la am di jugal ay soirée yo xam ñi ngi ñew ay ñom bakkom bu et en tout cas comme on dit c'est le choix de l'entraîneur on ne critique pas forcément le choix de l'entraîneur mais liñ ñu wax rek moy que ne Bamba Dieng daal pour man actuellement nit moom boo nekkee fenn ah dañ fa bu ñu la fa bëggul da jóge comme on dirait ku waaw comme neex daagu fañ la nobé comme on dit donc aujourd'hui donc Ahmadou Bambadian en tout cas gars supporter Marseille premier mi-temps bi 2h la ñooy mëna ñu commencé di yuxo ñeneen di scandé turu Bamba Dieng Bamba dafa war a ñëw ñu ko do annoncer du côté de Benfica wax na leen ko yéen kaay bi du record jox na confirmation bi né lolu amul mu Benfica musta ak contact ki contacté ki nga xam ne mooy donc pour l'instant lolu lañu wax lolu lañu mëna japp ba am ci lu léra léra léra mo gën ñu wax lo xamné woruñu mais pour l'instant benn contact amul ak Benfica Angleterre lañu xamné amna xam muy West Ham ak Newcastle pendant ce aussi ki nga xam ne Kaiser Sadio magnifique manière hein. l'enfant de Bambali le nouveau hein champion super coupe d'Allemagne avec le Bayern de Munich Disney, gis hein, tous les médias ni a ngi wax waxam gis ngeen également joueurs yi ñi autour de lui du coup sargala hein, an voilà diko jox gëddëm ki nga xam ne mooy Julian Nagelsmann aussi dellu si na Sadio Mané c'est un joueur boo il pousse l'équipe et les joueurs nee mom équipe bi da leen di motiver da leen pousse day gëna tax

apporté à cette équipe du Bayern de Munich wax aussi si nga xam système de jeu bien. ah a également xam na ni joué Nagelsmann day a huiler loolu li nga xam système et que aujourd'hui Sadio Mané bokk na ci fer de lance yoo xam ne tey ñoom ñooy dynamité li nga xam attaque au Bayern de Munich léegi nag bu renforcer seen défense bi dina am lu bëri aussi dina ko a apporter nee na aussi ñoom actuellement préparé woon nañu ah li nga xam ne di donc euh, Lewandowski ñu ngi préparé bu demee nan la ñuy jouer une une attaque à 3 ou une attaque à 2 gis ngeen système am 4 2 4 donc donc def na ko benn moment aussi mu def ko ah, donc 4 2 2 2 en tout cas Sadio Mané aujourd'hui hein, et plébiscité ñëpp a ngi wax waxam Nagelsmann nee na moom na ci Sadio Mané c'est un jour exceptionnel c'est un jour boo xam ne day motiver équipe bi il pousse les joueurs vers l'avant c'est un jour boo xam ne te am na bëgg-bëgg am na gis-gis gars yi la ngay xalaat ci gis-gisu nag Nagelsmann ak aussi yuuxoo yi nga xam ne supporter Marseille ñu ko doon yuuxoo Bamba et bu leen fàtte gars yi nañ dem voté ci jàmm et def bon choix parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar on avance ensemble gars yi jaa ngeen jëf